وإن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله maa ngi sant yàlla. mbokk yi imam na alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. mi nga xam ne kenn la ci turam kenn la ci jëmmam moom mi nga xam ne kenn la ci jëmmam kenn la ci jëmmam kenn ci turam kenn la it ci turam kenn la itam ci ay meloom kenn la itam ci ay meloom di julli ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di julli ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moo waxoon ne moo waxoon ne képp ku musiba dal képp ku musiba dal ma nga fàttaliku sa musiba ci man na nga fàttaliku sa musiba ci man lii xew tey ci kër ma jebel lii xew fii tey ci kër ma jebel muy alaaji baraam uy ji boromam muy alaaji baraam uy ji boromam musiba bu mag la de ci zaahir musiba bu mag la de ci zaahir waaye suñ ko delloohee ci wax yonent bi waaye suñ ko delloohee ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal oyof rek mu dal di xoyof ci ñëpp. ci kaw loolu. ci kaw loolu. maa ngi nuyu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass. imam na mu ngi nuyu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass. di ko jaale. di ko jaale. mën naa wax ne suñ ko ko jaalee sax moom kenn jaale nañ ko mboolem fayda mën na wax ne suñ ko ko jaalee moom kenn jaale nañ ko mboolem fayda bi yëpp. ko jaale Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass. nga xam ne njaale mi matal na kër baay boobaa. nga xam ne njaale mi matal na kër baay su boobaa. matal na itam mboolem Medina. matal na itam mboolem Medina. jaale nag mboolem taalibe jaale nag mboolem taalibe yëpp. di jiital kër Cheikh Serigne Mbaye ci jaale boobu. di jiital kër ci jaale boobu. xalifa bu bees di ci jiital seen xalifa bu bees cheikh maahi sëriñ bay cheikh maahi sëriñ bay jaale ay rakam yëpp di jaale ay rakam yëpp di jaale itam waa kër alaaji baram di jaale itam ak seen mag cheikh ibrahim di ci di ci xalifa ñoom itam ak seen mag di cheikh ibrahim mii di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. mboolem ay naal yoo xam ne Alaaji Baram amoon na ko yàlla mottali seen loxo. mboolem ay naal xam ne Alaaji Baram amoon na ko yàlla mottali seen loxo yaa rabbi. lépp lu jafe woon ko yàlla yombal. lépp lu jafe woon yal na ko yàlla yombal. lépp lu sori woon yal na jege. lépp lu sori woon yal na jege yaa lu amutoon itam ci xiw yal ko yàlla amal. lu mu amutoon itam ci xiw. lu amutoon. lu amutoon ci xew lu amutoon ci xew ko yàlla amal ñu ngi am yaakaar bu baax a baax bu baax a ndax yàlla du def genn wàllu mukk ndax yàlla du def genn wàllu mukk ni ko mayee mu dund ci lii mu dund ni mu ko mayee mu dund ci lii mu dund yépp dund ko ci diine dund ko ci tariqa bi dund ko ci fayda bi dund ko ci diine ji dund ko ci tariqa bi dund ko ci fayda bi loolu rek mooy continuer du taxaw mukk loolu rek mooy continuer te du taxaw mukk nag ñun nag ay jullit lañ ñun nag ay jullit lañu ay doom aadama la itam ay doom aadama la ñuy itam mënuñoo gëm yàlla démb di ko weddi tey mënuñoo gëm yàlla démb di ko weddi tey xam ngeen ñun ñoo waxoon ne laa ilaha illa ñun ñoo waxoon ne laa ilaha illa ñun ñoo waxoon itam ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu waxtu wu nekk rek waxtu wu nekk rek bu xéewal amee bu xéewal amee ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant yàlla alhamdulilah bu leneen amee itam ñu delloo ko ci yàlla rek bu leneen amee itam ñu delloo ko ci yàlla rek te xam ne yàlla am na kuutal waxtu wu nekk te xam ne yàlla am na kuutal waxtu na uutu moom moom ci boppam yàlla na uutu fii yàlla moom ci boppam yàlla na uutu fii yàlla bu mu fekk fitna ci kanamam. alaaji Ibrahima yàlla bu mu fekk fitna. mu ci gannaawam. yéen li bëggoon ci njabootam yàlla na ko yàlla defal. li mu ci njabootam yépp na ko ko yàlla defal yaa rabbi. ci waa kër Cheikh Serigne li mu na ko yàlla defal yaa rabbi. mbooleem liggéey yi mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla nangu. mboolem liggéey yu fi bàyyi yal ko yàlla nangu. te yàlla bu mu taxaw mukk. tey yàlla bu mu taxaw mukk yàlla continuer rek di dem. yàlla continuer am nañ yaakaar ci loolu. te am nañ yaakaar ci loolu. ndax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dafa ne. ndax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dafa wax lépp loo xam ne yàlla tax. lépp loo xam ne yàlla tax. loolu dafay jokkaloo te dafay sax. loolu dafay jokkaloo te dafay sax daayiman. te lim nekkoon lépp yàlla rek la yàlla rek la woon. moo tax am nañ kóolute ne loolu dafay jokkaloo te dafay sax. kon am nañ kóolute ne loolu dafay jokkaloo te dafay sax dàkk. yàlla ni mu doon def ak ñun démb rek noonu lay def ak ñun tey. yàlla ni mu doon def rek noonu lay def ak tey. boo amut njortu lu rafet ci moom. boo amut njortu rafet ci moom. ngir ne loo nekk rek ci éwénal ko lay mu ak yow. ngir ne loo nekk rek. ci xéwénal ko lay mujj ak yow. fàttalikul rek. fàttalikul rek. foo ma sa nekkee ci jafe-jafe te génnewu la ci. foo ma sa ci jafe-jafe yow jaam bi te génnewu la ci. fàttalikul tamit. fàttalikul yi tamit. foo ma bëgg dara ci moom te may la foo mose bëgg dara ci moom te may la ko. moo tax ñu xam ne ay bëgg-bëggam yëpp yàlla may na ko ko. te ñun xam nañ ne ay bëgg-bëggam yëpp yàlla may na ko ko. li des yëpp jamono dana ko feeñal. yi ci des yëpp jamono dana ko feeñal. ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp. ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp. am na yàlla dimbale diine lislaam. imam na yàlla na yàlla dimbale diine lislaam yaa rabi. yal na ñu yàlla def ñu tam ñuy dimbal ñaal diine lislaam. yal na ñu yàlla def. ñuy dimbal ñu tam ñaal diine lislaam yaa rabi. yal na yàlla dimbale tariqa bi. yal na yàlla dimbale tariqa bi. yal na ñu def ñuy dimbal ñaal tariqa bi. yal na ñu yàlla def ñuy dimbal ñaal tariqa bi. yal na yàlla dimbale fayda bi. yal na yàlla dimbale fayda bi. yàlla def ñuy ndimbal ñaal fayda bi. yal na ñu yàlla def ñuy ndimbal ñaal fayda bi. li nga xam ne mooy bëgg-bëgg baay. li nga xam ne mooy bëgg-bëgg baay. ci ñun. ci ñun. ak ci jullit ñëpp. ak ci jullit ñëpp. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def yaa rabbi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah.